jërëjëf kon dañuy ambali liggéey bi parce que ñoo ngi war dem ba daara incha allah ñoo ngi ñu ak le ministre El Malick Ndiaye ak doyen Habib pour bu mag a mag kon sans plus tarder dañuy jox tête de liste bi muy Daba Wade jox rapidement Amath Niang mu wax ma leen nuyu après ñu teg ci imam Dramé ña des bu ñu demee daara comme ni ko président waxee ah dama waaj dafa bëgg waxee fii ah waaw aussi kon ku nekk 3 minutes 3 minutes merci beaucoup. Diomaye mooy. Diomaye mooy. Sonko. Sonko mooy. Diomaye. fii ñoo ko moom. fii ñoo ko moom. fii ñoo ko moom. fii ñoo ko moom. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf Kébémer ñoo ngi leen di nuyu. di leen ziar di leen bëggee. di kontaan aussi ci mobilisation bu exceptionnelle bi ngeen def ngir teeru sunu jàmbaar. c'est le chef de parti, le président Ousmane Sonko. kon bitik ko président de Figaro lors des élections présidentielles ne woon ne Kébémer dafa bëgg ñi gagné fi largement ñi defal ko ko ko maintenant nag dañu jëm ci des élections décisives. muy le 17 incha allah Kébémer est-ce jox majorité son excellence dégguma de Kébémer pare ngeen est-ce que pare ngeen président jeunesse bu Kébémer moo ci liste nationale bi li ñu bëgg nag mooy Kébémer fii dafa am ñu fi nekk pendant plus de 12 ans fi 12 de culture nekk fi maire nekk fi lu ne mais amaluñ benn njariñ dëkk bi li ñu bëgg nag mooy affaire bi changé complètement gars yi est-ce que pare ngeen pour jox 100 pour cent Kébémer Pastef la jeunesse dëgg ma dara de jëf la leen jërëjëf. salaamaaleykum. salaamaaleykum Kébémer. salaamaaleykum Ndandi. ana waa Ndandi. ana waa di leen wax ni dañu jëm ci bu am solo tournant boo xam ni avenir u Sénégal daf aju di leen wax ni combat bi dafay soog a commencé première mi lañu la ñu nekk mënoon nañu 2-0 première mi-temps pour ñu ray match bi mu jeex il faut ñu mobiliser. sept heures du matin fekk ñu ci bureau de vote yi bu ñu demee ba dix huit heures ñu jubilé ani ci ci loxo président ana ñi bëgg Ousmane Sonko ana ñi gëm ana doomu daara ana ñi gëm président Diomaye kontaan nañ ci mobilisation bi incha allah le 17 incha allah. rendez la victoire pour le département de Kébémer incha allah. jërëjëf kon ñu jox daba daba wañ mu ñëw sànni ci kàddu wañaan daba wañaan daba maa ngi yàq sant bi ah. <laughs> allo yi ñu nekk assemblée nationale ñu ngi doon défendre intérêt intérêt département Kébémer lépp loo xam ne moo fay manquement muy tali yi muy forage yi muy jafe-jafe yi am ci wàllu njàng meeg lépp ñu ko doon défendre mais yàlla def na ne président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye bu mu toogee. ci salle bi ñu koy construire fii ci département bi euh, kon président ñu ngi lay sant vive président Ousmane Sonko merci Sonko merci encore une fois merci monsieur Déthié Fall kon ñëpp monsieur Déthié Fall La presse vous demande d'avancer un peu s'il vous plaît. mu mën a wax. et de faire face pour quelques secondes. après ñu soxla di jox président Ousmane coordonnateur. asalaamaaleykum mbokki Kébémer ñu ngi leen di nuyu leen ziar di dalal Ousmane Sonko le président de PASTEF le premier ministre di wax ne ça c'est pas nouvelle. Kébémer gàcce ngalaama à chaque fois que le président Ousmane Sonko mi ngi ñëw Kébémer dañuy gis vous faites une très bonne mobilisation une très forte mobilisation donc ñu leen di ñaan dañu jëm ci élection yoo xamante ni c'est des élections décisives ñu ñaan Kébémer entier ñu voler ñu voter la coalition PASTEF donc président ñu ngi lay dalalaat Kébémer bi ngi nii say goro say xarit say rak say lépp ñu ngi nii di la dalal tey merci beaucoup jërëjëf kon ki ngeen doon xaar di le président Ousmane Sonko yegg si na fii si Kébémer ci délégation bi président Boubacar Camara mi ngi ci présidente Maïmouna Bousso mi ngi ci Mbaye deuxième sur la liste nationale mi ngi ci Mbappé di Ngagne Demba Touré mi ngi ci on introduit le président Ousmane Sonko. Tout le monde,